mbokki Sénégal yéen ñi doon jaaxle seen jaaxle jeex na déglu ma bu baax ma jox leen xibaar bu neex ak soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum boroom ruq bi yéen ñu am jaaxle-jaaxle ci seen wàllu wér-gu-yaram am jafe-jafe àdduna solution fii la fekk baax soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñëw na ngir indi leen saafara si seen bépp jafe-jafe moo xam dangaa bëgg seet wala nga bëgg listixaar xoolal bu wóor nag laa lay tegal nii ñëwal ci soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ndax listixaar bu wér te wóor la lay defal teg ci nag li ci gën a neex moo di mën nga toog fa nga toog woote téléphone ñu defal la listixaar bu leer nañ soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum borom ruqu bi jàmbaar dëgg la léppam nag mu teg ko ci mbiru taalibe moo tax bu sa yaram jaxasoo nga yëg ci lu diis wala nga mel ni ku tëju soxla ubbeeku jokkul ak soxna ndey bu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bayre moom moo ma ci doy yéen ñi am jafe-jafe kayit di def ay concours mu dëgër lool lool wala nga bëgg tukki mu jafe la lool kaay ci soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla defal na ko ci tawfeex moom laa duppee solution ndax jafe-jafe boo mënti am bu jëflantee ak soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane si Al borom ruq bi ay solution kese nga ciy gis adresse am mu ngi ci diwaanu Kër Massar numéro téléphone am di 70 907 46 73 ak soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum listixaar bu wóor ak ñaan ngir nga am tawfeex fii la fekk baax jaaraama soxna ndey bu sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum chers internet yu enquête dal leen jàmm dalal leen jàmm ci li gën a fas ci yëglekaay yi ñu commencé kook l'info yéenekaay mi dellusiwaat ci xëccu xiiroo ngaayoo gi nga xamante ni jamono ji mu ci diggante magistrat yi depuis ba juge Sabassy Faye fasalee nag verdict procès de radiation président Ousmane Sonko bi mën agence judiciaire de l'État laa wax amul lu nu yàkkul juge Sabassy Faye lii tax na nag union des magistrats du Sénégal ñoom tamit daal génn recadré waat moom agence judiciaire de l'état nag la mu xam ne ci benn communiqué mooy audience bii nag ci parax-paraxee lañ ko defee juge bi ci boppam laa la wax daf doon violer loi yi respectéwul benn loi réquisition bi nga xamante ne ni sax defoon nañ ko daf ko mujjee ignoré lijjantiwul sax formulaire bi lii moo naqari nag agence judiciaire de l'état bii ba tax na muy attaqué nag juge bi te bu ñu sukkandikoo ba tey ci agence judiciaire de l'état bi nee dafay magistrat du Sénégal def nañ ko jegleel ko agence judiciaire de l'état bi xamal ko ne ko lii am ca tribunal bu Ziguinchor amul leen luñ ci mën a jëm laa la wax mooy yoon clash bi nekk ci diggante union des magistrats du Sénégal ak agence judiciaire de l'état bi mbaa di mujjee am beneen tournure vox populi ne bu bëggee dégg-dégg kay mbir Ousmane Sonko yi commencé naa féewale laa la wax magistrat yi coow li dafa tàng jër fi mu toll nii ci seen biir ndax ñoom magistrat yi lu ñu mënta wanaasu mooy lu tax agence judiciaire de l'état bii di attaqué nag juge mënatoo kase rekk dong moo tax ñu leen di ngawte ngawte te nag ñoom seen rage dafa raar lool nag ci biir magistrature bi Alioune yemul ci loolu ndaxte mu ngi xam ci biir yéenekaay bi ne gis nga verdict bii jógee ci tribunal bu Ziguinchor ndamu magistrat yépp la te dafay dëggal dong ne am na ay magistrat yoo xamante ne ni kenn mënu ger maître Bamba Cissé di avocat Ousmane Sonko di xam ne ci biir yéenekaay bi ne même pourvoi bi nga xamante ne nii agence judiciaire de l'État bi def na ko amul benn effet laa la wax ci verdict bi nga xamante ni juge bi jël na ko ca wet ga yéenekaay bi dalal Moustapha Diakhaté mu yàq lu mel ne xeme juge Sabassi Faye moog magistrat bi di Mariam Diop Gueye amul lu leen Moustapha Diakhaté laa la wax yàqul Moustapha Diakhaté di xam ne ci biir yéenekaay bi ne coowal Adji Sarr Ousmane ñu ngi fàttaliku frère ministre de la microfinance dafa désisté woon jugee ci responsabilité ndaxte xamoon na ne mën naa indil ay jafe-jafe wax procédure bi

da ci alxamis bi ñu génn am nañ jàpp ko ne ko ràpp ci biir kaso bi Les Échos yéen moom dem ci assemblée nationale ak coow lu rëy li nga xamante ni ñu ko fi seentu ni ki tey ji nga xam ne mooy ouverture session ordinaire unique bu député yi yéenikaay bi ne ba moytul coowaloo am fa de rawatina diggante député Pastef yi ak yu taxawu Sénégal ndax jamono ji jii duñu laaloo taal Pastef ak ay alliés waaye Yewwi Askan bi laa la wax soxlaatuñu daraay waa taxawu Sénégal te seen yéene nag moo di ñu génne leen ci groupe parlementaire ba waaye bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi député Khalifa Sall yi moom jéemu ñoo sax laa la wax répondre provocation yi ni mel yombaluñ leen fi mu nii laa la wax séparation bi ay conséquences nag ñoo ngi koy séentu ci composition bureau assemblée nationale ndax bu fekkee ah, ne génne ca biir pale ba pour ñu paraneel Amadou Ba balaa muy wees te bu ñu sukkandiku ci biir yéenekaay bi ñoom député yépp mujjee paraneel Amadou Ba ba mu des ñaar jàpp ñett yoo xamante ni jamono ji nekkuñ ci biir réew mi président Macky Sall nag ca biir waxtaan ba daf leen a nëbb kan ma war a nekk nag président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar comme d'habitude daf leen bëgg a defal surprise bi su tey bii nga xamante ne nii mooy ouverture session ordinaire bi tamit di xamle man moom fi mu toll nii moom na leen wóor ne week-end wii buñ ciy jug maa ngi ci terrain muy ëpp laa la wax li may toog primature direct news ne jafe-jafe kay fi mu mu ngi des ba léegi ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax rencontre bi nga xamante ne association des maires du Sénégal amal nañ ko ëllëg ca ëpp nag nekk ay maireu Benno Bokk Yaakaar rencontre ba dafa mujje laj ji de ndax Omar Ba mi ñu dénk association bi dafa convoqué woon lu toll fukki maire ak ñaar waaye juróom-ñeenti maire yépp nag dañoo mujje boycotté rencontre bi te la ñu ca di ñu daal di parrainel nag Amadou Ba jërikaay bi nag ci tënk rek boo yooyu dañoo am lu leen naqari nag ci biir nguurug Sénégal te mooy dañ leen a lijjanti seen i jafe-jafe rawatina maire yi nekk ci diwaanu Diourbel ak li ko wër moo tax fi mu nii yéenekaay bi xamal nañu ne Amadou Ba dana def nag lu mu mën pour mën a convaincre nag Malick Fall te sax yéenekaay bi xamal nañu ne ci fan yi ñu génn nag rencontré na ko enquête yéenekaay moom des ci mbiru Ousmane Sonko participation ci élection présidentielle yi ñu jëm yéenekaay bi ne bajo bi de saa yu jugee ci coow lii am beneen coow loo xamante ni des na ci kanamam gannaaw coowal fiche de bi ak coowal radiation bi nga xamante ni verdict bi bëri na lool ay contestation fi mu toll nii am na beneen coow lu nekkaat ci kaw Ousmane Sonko mooy dossier bu Mame Mbaye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 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee nekk ci diwaanu Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro bi di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekk ci diwaanu France Paris ak li ko wër woote leen ci plus 33 744 75 08 39 yéen ñi nekk ci diwaanu Angleterre woote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñi nekk ci diwaanu Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teen ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum